xalidul faateeti ay borom leer. man de maa ngi tuub tuubal yàlla sama borom. Serigne Cheikh Saliou Mbacké ñu gën koo xam ci Serigne Saliou Mbacké mi ngi génne jamono mercredi le 22 septembre ci atum 1915 fële ca Diourbel nekkoon doomu Soxna Faati Jaxate ak Serigne Touba Mbacké bi mu génnee jamono Serigne Mamadou Diop Dagana la Serigne Touba yónni ngir mu dem wutali ko aw am na ñu mu bokkal Soxna Faati Jaxate ku ci mel ne Serigne Abdou Khoudous ak Soxna Tahiratu Mbacké ak Serigne Abdou Baaxe Mbacke Serigne Saliou Mbacke Serigne Touba moo ko dalal jàng fële ca Diourbel ginnaaw bi mu daal di koy jox nijaayam Serigne am Jaxate Serigne Amsatu Jaxate daal di koy jébbal ca daara ja ku ñuy wax Serigne Alsan Jaxate mu daal di koy jàngal alxuraan ginnaaw bi Serigne Modou Moussa di koy indi tindo ci Serigne Ahmadou Guyar Dieng ngir mu wéyale fa jàngam ginnaaw bi mu daal di koy jox Serigne Abibou Mbacke Serigne Abibou Mbacke fii si Touba ginnaaw bi mu daal di koy yóbbu Diourbel Serigne Mahamadou Dem bu Jurbel Serigne Saliou Mbacke Serigne Modou Moustapha Mbacke joxoon na ko ndigal ngir mu sanc ay dëkk ci atum 1934 mu daal di sanc dëkk bu ñuy wax Lumbel Lumbel Sayel mu daal di sanc dëkk bu ñuy wax Got sanc dëkk bu ñuy wax di sanc Ngéej di sanc Gelor dëkk bu ñuy wax Njenn ay daara Serigne Saliou Mbacke sanc na ko mu ay daara fële ca mu daal di sanc Njurul Daaru Salaam Njàpp Ndal Xabaan Kanel mu daal di ay daara daara fëri ci njukkal kom mu daa di koy gor sañc fa luy tolloog fukki daara ak juróom ci atum 1990 jàpp 1991 mu daa di sañc quartier bu mag bi ci Touba muy quartier bu ñëpp ràññee atum 1992 mu daa di sañc jannatul maxwa ba ci hôpital bi gën mag ci Touba foofu la mu daa di sañc Touba Njaaréem dimanche le 13 ci atum 1990 mu daa di toog juróomeelu xalifa fay wuutu magam ju baax ja di Serigne Abdou Khader Mbacke Serigne Saliou Mbacke mu nekkoon koo xam ne ku laabir la woon ku bëri woon yërmande ku toppoon ci ay magam fonk ay rakkam mu daal di dolli quartier yi nga xam ne moo nekkee ci diwaanu Touba dolli parcelles yi ndax wax na Serigne Saliou Mbacke dolli na 1000 parcelles ci atum 1990 ba 2007 daan taxawu gone yi nekkoon ku bëgg ndaw ñi mu nekkoon koo xam ne ku bëggoon ku amoon yërmande ci xale ku amoon yërmande ci ndaw ñi ba tey ji ci ndaw ñi bëgg lool Serigne Saliou Mbacke ba amoñu ci sax mu yaatal daayira polisu jannatul maxwa moo ko fi indi ci ak xilaafa ba ci daayira bu mag bi di safinatul aman di saytu war may dëkk bi ci xilaafaam lan ko fi indi hôpitalu Matlaboul Fawzayni di hôpital bi gën a mag ci diwaanu Touba ak li ko war ci xilaafaam la fi taxawee ci njiital daayira Matlaboul Fawzayni ak beneen hôpital bu ñu duppee Serigne ma Madina nekkee fële ca jaxal wàllum ndoxit sëriñ Saliou Mbacke def lu am solo di aynu rahmati ginnaaw bi ñu soppi tur wi mu tegoon woon ko yokkub jumay Touba ci atum 1984 mu daal di koy jox société bi di SDE daayira bi di saytu mboolem li nekk ci diwaanu jumay Touba ak li ko di daayira Muxaddamatul Xidma moom moo ko fi def ci atum mu daal yokk jullikaayu jumay Touba mu nekkoon ko ku fonkoon taalibe yi ku bëggoon taalibe yi daal leen xirtal ci ñuy liggéey ak jaamu yàlla mu daa gor gorlu xelkom ci atum 1991 ginnaaw bi mu wootee xelkom nag ba taalibe yi dem ba ñëw Serigne Saliou Mbacké daa di leen di sant gërëm leen daa di leen di ñaanal màggalu Tuubaa gi nga xam ne moo ko fi njëkk a fekk ci ak xilaafaam mi ngi tombeeg lundi le 10 septembre ci atum 1990 mu daa di amaloon ab tukki fële ca Gambie ak Côte d'Ivoire xibaar ngir nemmeeku taay atum 2005 commune rurale bu Touba ñëwoon nañ seet si Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou daal di leen di ñaanal ak sant ngir liggéey bu rëy bi ñu amaloon ci biir Touba ka sapeur pompier bi ci Touba ci ak xilaafam la fi ñëw mu daal di fi bàyyi ñaari hôpital muy Matlaboul Fawzeyni ak hôpitalu Serigne Mbacké Médina ci guddik jeudi le 27 décembre mu daal di wuy ji borom ñu xëy vendredi le 28 Serigne Muntaxa Mbàkke daal di koy taxaw jébbal ko boroom wax na ni laata boobu jàngalu woon na alxuraan wàcce lu kaamel sàkk lu ay sara bi nu xëyee ci leen yëg ni Sëriñ Saaliw wuy ji na boroom ci yàlla jël na bàyyi soxna waalo bu leen ko wóolu ci yàlla jël na bàyyi soxna moomi ba tey am na ay turandoo ku ci mel ne Serigne Modou Moustapha Mbacké tuddee na ko doom Serigne Fallou Mbacké tuddee na ko doom Serigne Abdou Lahad Mbacké Serigne tuddee na ko doom yàlla yàlla ay leeram te taafu ci barkeem mu nekkoon ku bëgg mu nekk koo xam ne ndaw ñi ñëpp ko bëgg muy góor di jigéen yow la xalidul faateti ay borom leer man maa ngi tuub tuubal yàlla sama borom war na jaam bu